président Macky Sall. ah président Macky Sall de yaakaar naa ne ñëpp bëgg nañu am papa ju mel ni moom ñëpp bëgg nañu am doom bu mel ni moom ndax bañ ko gisee ba léegi mën nañ ne nit boo xam ne am na yar parce que ñu ne sa papa yaru na rek ndam la sa doom yaru na rek ndam la te man loolu laay roy si président Macky Sall gis naa ni nitu jàmm la nitu salaam la liggéeykat la ñafekat la. da ngay xool fu mu jaar parcours am. nitu jàmm la jàmm. lu tax nit yi naan tout ce qui se passe ici aujourd'hui dans ce mhm. pays. waaw ndax ñëpp naan euh, moom daf ci am responsabilité. waaw xam nga on ne peut pas plaire à tout monde. gën nga mi ne sallallahu alayhi wa sax amul loolu ñëpp bëgg la déedéet c'est parce que ay noonam ñooy wax loolu mais ñi bëgg Sénégal dëgg ñi bëgg président Macky Sall dëgg bu ñu ko xoolee rek dañuy xam ne kii nitu jàmm la nitu salaam. d'accord koo xamante ni mosoo ko dégg mu ne leen yee leen fitna kooku nitu